sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi di borom xam-xam bu mag bu kenn dootul naatable xam-xamam ci wàllu seet listixaar lasraar ak ñaan sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi amu ci morom yow mi rab jàpp wala cat sonal la sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas wala nga bëgg a tukki nga tukki bëgg am ay kayit ngir ñibbisi wala nga bëgg soxna wala nga bëgg borom kër dawal gaaw jokkoo ak sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi mu faj sa aajo ci lu gaaw a gaaw seet ak listixaar bu wóor wan la say mbir ba lépp leer ci yow loolu moom ñëpp maase nañ ñi amu ci morom ngir jokkoo moom wooteel ci numéro téléphone bi 75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 juróom benn fan ci weru septembre bi ci booru nag 5 heures du matin jot nañu jàpp ñaar ñoo xam ni kon rekk ñu ni bokkoon nañu ca mbir ma ginnaaw ga nag dañu leen rek daal di jàpp ca nag sax nag fet boola boîte de nuit ba nga xam ni ca lañu amooloon foofe ca Almadies doon feetu ginnaaw gi lañu leen laaj rek waaye dañoo weddi mbir mi nag ginnaaw nag la leen fësal mooy image vidéo de surveillance yi nga xam ni kon gis nañ leen ca ci saytu nag bu baax a baax nag xool leen eh, ci jamono yooyee kon lañu gis ni kon sax yëre yi ñu sol nag ni bañ leen jàppee moom lañu soloon ca bës ba ginnaaw gi ci lañu rek topp mbir mi <laughs> di ko xool nag ba polisu HLM moom itam rek addu ci mbir mi waa di leen ak xool kon yemale leen ñu xam ni ñoomee kon ñoo def mbir mi chauffeuru taxi bi nga xam ni itam gis nañu ko ci vidéo bi jamono ji ñu yóbbal ko nag euh, waa sûreté urbaine ginnaaw xibaar yi tukkee foofu tey jii ci samedi bi ñu nu image yooyu nga xam ni kon moom lay mooy wane ca vidéo surveillance bi nag moom kii di DS Momé la muy chauffeur taxi bi ndax moom nag gis nañu euh, dafa rekk daal di jël xaalis bu toll rek ci million boo xam ni manqué na ñaari junni euh, ci nag ki nga xam ni moo yore woon sac bi jamono joojee nag ñu ni bañ ko da ko rek daal di weddi waaye nag bu ñu xoolee euh, caméra de surveillance yi gis nañu ba mu koy daal jël waaye moom nag la mu wax mooy ni bokkul ci agresseur yi ginnaaw gi rek lañu ko daal di rek euh, yóbbu garde à vue waaye jamono ji ñu waxee ak yéen rawatina euh, ci samedi bi kon tey ñu ne yóbbu nañu ko ca parquet.